libération nañu àjjumay tey ji àjjuma la joo xam ne usman Sonko du ko gaaw fàtte assemblée nationale woote nañu plénière tey ci yor yor gi ngir ñu woote lu jëm ci levée immunité parlementaire bu Ousmane Sonko ñeneñu waaye nday yi mbili ji di Ousmane Sonko nee na kenn du ko futtee noone Sonko ma ngay jafandu ci ab manton ba léegi ba wax ñu ne démb ca la doon janoo ki taskatu xibaar doon defi déclaration fa la waxee ne moom Sonko moo ne woon bu ñu dindee immunité parlementaire am 10 heures 10 heures 5 mu dem wuy ji justice léegi nag moom Ousmane Sonko daa dematul fenn ndax anam yi gaa yi jaar ba bëgg levée immunité parlementaire am daraa ci jaarul yoon yoon libération ne en tout cas aljuma ak tey jii daal sedd mukk ci réew mi te réew mi saa wu yëngoo nekk ci banga banga bu mu betti kenn